ki ñëw pour kaas euh, suñu bourse parce que ça fait euh, cinq mois fay ñu suñu bourse moo tax tey ñëw fii di réclamer suñu bourse te loolu aussi seen notre droit le plus absolu moo tax ñu ñëw di ko réclamer te le directeur des bourses xalifa Gueye daa dem RFM di wax ne fay nañu trois ans de bourse alors que loolu nekkul dëgg. tey j'espère ko ku wax étudiant wax bourse parce que bourse yi dafa utile si ñun. dañuy def dañuy paas pour jàng dañuy jënd connexion leneen leneen loo xam te ne moom moo ñu siy dimbali kon bu ñu tollee fii ñu téye suñu bourse ça fait cinq mois fay ñu ñëw kon loolu moo tax ñu ñëw bloqué li bi ak moo tax ñu leen di wooye yéen ñëpp yéen waa P8 yéen ñëpp ngeen engagé wu pour ñu xeex bourse yi te dañ bëgg ñu fañu suñu bourse yi yëpp au total ça fait deux cent trente cinq mille francs te dañ koy réclamer jusqu'au bout te duñu arrêté tant que fay ñu ko benn examen du am fii actuellement ñun nag ak waa ASP ak waa euh, SP mooy science juridique ñun ñoo bloqué lii bi nag ne du am lu tax loolu nag parce que promesse yi ñuy promettre moo bëri jusqu'à ce que nag ñun ñun taxaw ñu ne examen du fi am benn activité du am ci ENO yi. de 115 235 la ñuy laal bu lu bëggee grève bi na arrêté 235 parce que ça fait 5 mois après ñu continuer du ñu fay jusqu'à octobre ñu fay ñu suñu brousse les 40 continuer jusqu'à octobre à part ça on va maintenir les grèves jusqu'au bout. lii nii ñu décrété nag instant yii nii waa administration bi ñu woo nañu pour pour ay pour parler c'est-à-dire que pour ñooy négocier ak ñoom léegi nag balaa loolu ñun dañoo taxaw def face ak presse bi jàllale suñu message ñëpp xam ne ñun lu ñuy xeex suñu droit la.